xam ne soxna soo xam boo xëyee boo xëyee loolu la def loo doo ko def dox rek dox guddi dox ba jëkk bismillaahi rahmaani rahiim yàlla suñu mi xam ak ànd boobu ba léegi mu boo mu boole nu soo li ngay njëkk def leen la ñu naam dramé jël say taat ni ko danduus mel ni kuy daraw jërëjëf say taat ay dagg Baye. am nga siyaar naa la. lépp jàmm am jàmm. waaw jafe nga de Kañ. foo jëm ni Kañ. foo jógee nii. waaw man Kañ benn paa ah, jógee fi Kañ. da nga xam paa boobu. waaw xam naa ko kay. non da ngay wax rek. Ah, a am na mbaam mu newoon suñu koñ. Ah. tëw ko dal bi mu dikkee ci ba defal ko li muy def. non mbaam mi fu mu toll day jugal. waaw sëñ Dakar fan la Ndama Ndama. waaw nijaay. waaw kon yow li may woote boobu la yaa ngi fii. Ndama nijaay li ma sañ tey moom doo génn doo doxee. Ndama wënde Ndama wëndeelul. Ndama dem demal ne ñëwaat. Ndama yegg seewaate. yii nijaay man moom sañse naa moom tey moom munoo wax a wax. Ndama ndaa ndaa ma ku la ñawal laa la laaj ku la ñawal. bàyyi muudu. muus na sama am na muus ma jéggoon ñaari tëli a oto ab ah? moo ko rëmal nga bi mu daanu bopp bi ay yuur gi di génn sañ Dakar daa dikk fëgg ko ne ko muus jugal dox say soxla eh. ba léegi muus mi mi ngi buntu bari xam nga lu muy wax ah. sañ Dakar yaaw kon kon boy kon boy paa boobu yëwee na la wax da def sañ Dakar waaw lu mu wax day am bàyyi muudu ndax ma yow gis nga li nga gis nga li nga sol ndax ma kii delloo na sa sa xotti taat yi Ariel loo na ko ndaam. waaw nijaay kon nag da nag lan la loo bëgg nag. ndaama ba ma lay ah. jëlee diglu ma ba ma lay jëlee sa kër ndaay ak sa am nga ko sax laay wax. mais dafa am lu wax de. lu mu la ko am soo benn ma dis mais dana ma mais bul ko waaj ah. def ko. xëy na moo ko mën a xam non xam nga lu may def xam nga lu ñuy def léegi. waaw léegi ci moom laa doon jëm. waaw ah. yoon di yem ci benn léegi naa ko bàyyi ñu ànd. dem wëri mbaam. ndaama lu taxoon nga ñëw sëy na sëy bu njëkk ah seel sëy bu jekk ndaama lu ma soxla suba ba guddi nga am ko mais ndaama soo soo su xëyee naam daraame naam daraam gis naa nag sama mu jaan ji bi yàlla dogalee doxul ba léegi ndaama fu la neex ngay dugg naam daraame naam daraame wóojojoj wóojoj mel ni pëcc moomul bàyyi waaye baax na rek. yaa ko wax nag sa mujjaan gi da ngay fexe mu dox lu la dal yaa ko teg sa bopp di doxaan ba sa mujjaan kale. ok andi la booy yow sama waay nga yow loolu du am jàpp baay sëñ Daxaar moom noonu la wax dana ko def. Ah. billaay eh, amul jàpp. mais booy booy booy yow mais mbaam ëmb gaa yow noo ko mën a xamee. non loolu <laughs> day jeex. Ah, ah, billaay day jeex loolu damaa doon ko war suñu demee nii dinañ ko am. mooy loolu sëñ Daxaar kàngam la de. kenn du ko dindi am nga jom am nga rakk jom am nga maami jom doo faal yaa xew moo xew. non maa ngi faju maa maa maa ngi faju loo fiy defat. booy faju nga gaaw si fañ mi. bu fekkente baat ngay ñaan bala ma may baat sama téeméeri junni danga ma koy delloo ci seen ndey ak sama baay sama bàgg daanoor danga ma koy delloo ci seen sama baay. woto rek allo waaw man la Serigne Bakar Ababu ah, hmm. li ma la wax boo demee waxu noonu bu bukki bi ma ne njëga naa yoo ko rek fukki bukki guddi fukki bukki bëccëg fukki bukki fukki guddi bukki fukki bukki guddi soo yow rek ñëpp nga foo xool ci Europe hmm? ndax dégg nga ma la wax may ndax gëm nga ma ah kon baax na soo ma baax na hmm. baax na na sa xon bu dee bu dee ñett tala yama yaban seen kër ma koy delloo lu ko may ma tos sa ba nga wa ba nga wàcce bu fekkee naa ma doxal doxal yow. jaaral nii moom la jaaral nii jaaral nii. dugal dugal naa ma dugal ci waat yow dugal ci naa sàcc jàpp naa sàcc. yow yow yow xawma kan mooy ñaanati baat waaye du yow. yow ci biir wàññi bu fekkee sama mujj daan ji baax nga xam ci biir wàññi laay seet yow ay seex nga judd. ñaan baat am jëkkër ba pare barki remal xaamal lakk bër sa jëkkër mënutul dara ngay ñaan bat ak seen Dakar jeex na tey. wa salaam. yaa ngi déggal xoolal yaa